yéene kaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf yirim fara wadd njàkk daara wadd njàkk mataar mi ci yuq yaa baax bàyyi loolee rek la Karim Wade déggul démb ci aéroportu Ndakaaru yegg na démb tey yéenekaay yi xëy ñëw ci ñëwam gi woon démb ubbil observateur journal bi ñu vingt et di neefeer ci guddi ba mu demee ba teg juróomi minute ci la roppalaanub Air France bi wàcc ci aéroportu Ndakaaru ñu dem ba neefeer ci la gis safarub Karim Wade bi mu génn ci salon d'honneur ba Europe walis juróomi minute Patrick Mallé le quotidien nañu Karim Wade dikk na ëndaaleb awakaam ndax awakaam bii di Rasek Bourgi moom la Karim Wade àndal démb waaye la ci gën a nag moo di ñu nekki kàngam ci biir parti démocratique sénégalais di parti baayam bi démb ña demoon di teextu ji Karim Wade bokkuñu ci direct info nañu Karim Wade yegg na démb tey ji lay dem janoo ak sandarma yu Colobane Colobane googee réew mi quotidien nañu karange gu mat sëkk la fa nemmeeku ne la wër Diagne dem ca gendarmerie Colobane ngir jàppale ji Karim Wade la si ne kay nañu Karim Wade moomee bu sàgganul fa muy mujj ak enquête kat yi mooy ñu tere ko mu génn réew bu Sénégal mbir ma mën na ko cee fekk lépp rek mi ngi aju ca la muy tontu enquête yi ak la ko enquête kat di wax bu ñu ko enquêté ba noppi ca la jël dossier ba jëbal Aliou illicite Karim bu moytuwul tama du ko ëppi bu Walf Fadjri ne ko dara du ko ca fekk Karim na mu ciy duggee na ba teg moo di mi nga xam ne moo jiite cour répression enrichissement illicite amul mën mën a kàttanu war a mën a nit koo xam ne mas naa dégg monsieur ministre loolee bu ñu bëggee mu am ci réew mi yéene bi di wal fajir nañu am nay kàngam yi seen xam màcc jëm ci wàllu yoon la leen xamal mooy faaw dañuy taxawal ab haute cour de justice justice di yoon ca lay dox ba léegi Bertrand Touline jiital Lamantin Beach ma ñu jàppoon ci mbirum cocaïne gawoon ca boobile l'hôtel mook lig Nicolas Populaire nañu Bertrand Tulli yoon tulli na jant ne Bertrand léegi ko génn ci kaso bi xaalis la ca Sénégal moo di réew moo xam ne boo fi nekkee wutal xaalis ndax sa yoonu bopp ngay amee Bertrand li mi ñu génn ci kaso bi yéen bi nañu magistrat mer ba dab awokaay Luc Nicolaï ndax ñaawlu nañu ba fa ñaawlu yam Bertrand léegi anam ya ñu ko joxee liberté provisoire yëf yeeg ni mu gaawee dafa dem sax ba jaaxal laan maître Bamba Cissé di kenn ci awokaay Luc Nicolaï yi ne ñu ñoo doon xaar populaire di laaj ne ginnaaw Bertrand Tulli bàyyi nañu ko mu dem këram ndax danañu ko mën bàyyi mu dem Paris xooli seexam yi juddu gannaawam Walfadjri Grand Place nañu seex yooyu nga xam ne ba ñuy juddu seen baay mi ngi ci kaso bi li am ba des moo di seex yi jip nañu seen baay ndax Bertrand Tulli génn na ci kaso bi ki naroon dugg ci kaso bi te mu far mooy populaire ak observateur nañu moo di avocat bi di maître Alaaji Diouf yëf ya xewoon ca Paris moo di maître El Hadji Diouf dañu koy daan juróom benn weere kaso yoo xam ne du ko tëdd maanaam six mois avec sursis ndax maître El Hadji Diouf taq na ci gone gi ripp borom taq ripp di tafatin moo kañu ko war a booleel di Balla Gaye 2 triple less doomi dubales ñoom ñaar ñëpp ñi ngi ci xët mu njëkk wal fajir sport journal bi dañu combat ba taxaw na waaye ñoom ñaar mu di tafatin di Balla Gaye 2 ci dànkafante la ñu toll tafatin sayan bawal mboolo mu njëkke kàddu gi di fa xam le ne mu dugg du ca génnee noone Balla Gaye ko ne jël na tafatin dana ko daan tegaat Kajoor rëcc ko moo di Gaston Mbengue ubbil sunu làmb Gaston Mbengue journal bi nañu defaru na ba jekk jaajuwaat di waajal ay combat yu mag bokk na ci Gris Bordeaux bokk na ci Eumeu Sène Yékini bokk na ci Modou Lo ak Lac de Guiers 2 deux saisons moo am ci réew mi mu di seddaay ak tàngaay tàngaay baa ngi tàggatoo seddaay bi di dugg si ci réew mi réew mi quotidien xëy defub gëstu ci jigéen ñi nekk ci seen néegi sëy ni ñuy waajalee seddaay bi journal bi nañu dara moo ci dul sedd ne bari na ay salañ-salañ yu ñuy waajal ngir tàngal seddaay bi bokk na ci jaljali bokk cuuraay yu ñu naan caxagun cuuraay yu ñu naan taq ci ripp ci gàttal daal yéenekaay bi nañu jigéen ñi bàyyiwuñ dara li fi woon sax muy beeco journal bi nañu xale yi dañu ko bëgg a bàyyeeg diryanke yi te dem seeti leneen